yéene di ko nuyu nuyu lislaam tey li ma bëggoon a discours du ma ko mën ndax dama am mbégte moo xam ne boole ko naqar woo xam ne amul yamukaay tey li may wax dama koy triché waaye mënu ndax dama am naqar sama doom laa ñaar mboolem askanu maaj ko wi ma bokk samay càmme ñaar fukki ak juróom la jël fay ko ci seeni poos bëggoon naa wuy si Daaru Xudoos ci président Pape Diop bii ci guddi la jëm sama doom mag ca Gàmbi ñëwagul kon tey munu aw ma lu ma neex waaye tey su fekkoon ne demewul noonu kon tey ku dugg Daaru Xuddoos di nga xam ne yëngal naa ginnaaw bi ma nuyoo Serigne Mountakha ba pare mooy nuyu sëtam yii toog tey wan ngeen ma li seen maam bindoon bàyyi réerul dama daan dégg ñu naan ñiy fooyee Serigne Touba yéen bokk leen ci Mbàkke la ci wata awunu anil birri wa taqwa rek ngeen di dox bu ma leen wooyee di ngeen ma ci wuy si. dëgg la du ngeen toog mukk ni sëñ Tuubaay seen maam da ngeen koo jëf. eh way jàng ngeen xasidaam yi jàng alxuraani yàlla yi dellu ca daara ya di liggéey di jàppale seen maam su ma wootee di ngeen ma wuy si. sëriñ Tuubaay sama maam kenn du ko mbubboo dañ koy jëf ndax ñun dañoo teel a jàng ind akramahum indallaahi atqaakum képp ku mën a jàkk dinaa xam ba xam sëriñ Tuubaay sa maam sëriñ Tuubaa kenn takku ko. dul ku aw ci yoonam tey tey te te te digle jaar ci lim digle Mbàkke siggal nga ma xaadim danga ne léegi dëkkandoo kii ñoo bokk maadame Fatma Dieye. eh waay kii ñoo bokk Serigne Touba ndax Amadou Soxna Bousso la ak Sayer Soxna Bousso. Sayer Soxna Bousso moo meññi Serigne Touba Amadou Soxna Bousso meññi Serigne Touba Sayer Soxna Bousso meññi Serigne Abdou Karim Touré meññi maadame Fatma Dieye meññi maam Cheikh Mbaye. Ah, xaadim moom dëkk bi du ma fi

ne ma nag jikko yi ñu gis ci yow ak qualité yi ñu gis ci yow dañuy dajal suñu dërëm ba mu mat caution ñu joxeel la ko porte la ngay suñu candidat man damaa ñeme. maam nag maa lay nuyu sagal nga di nuyu sama bokki bopp yi ginnaaw bi ma nuyoo Serigne Cheikh Bass moom sëñ Moustapha moom sëñ Abdou Aziz moom sëñ Baara doo xuloo mukk ne sëñ Toubaay sama. ak dégloo ak dégloo. dama ko doo xuloo mukk Mbàkke ne Serigne Toubaay sama. da ngay jëf-jëfi sëñ Touba ma ne la jàkk xam ne sëriñ Touba yi sax bàtte bàll jërëjëf yaag sa mbokk yu baax nga àndal tey loo am indil nga ma indil nga ma sëriñ Basiiru indil nga li nga am moom lépp ci askanu Mbàkke ay exemplaire ngeen képp koo xam ne soxla nga ku liggéeyal dëkk bi da seet sa sëriñ Touba yii nga xam ne ña ca la leen war ñu ñëw jàppale leen ngeen defar dëkk ginnaaw ba loolu jàllee maa ngi sant sëriñ sëriñ Baye Mbacke Gueye moom seex moom moom sëñ Bamba Gueye ca taw feex man ay wàll yu rek ma meññ lu ma waay yéene ci département bi doo ko téye loolu man leer na ci kattanu yàlla li ma bëgg a wax nag tey ah. wax ko sax ndax mbégte mii ngeen ma wan maa ngi sant Fatou Koura ak Ami Kolle suñu mag yi ak géwél ak ñëpp bàyyiwu ma kenn ku fi teew rek tey maa ngi lay sant di la gërëm ak mbégte Fatou Koura mii toog moom maître Xaasim Touré ñoo bokk nday ak baay Fatou Touré mii toog moog sëñ Moustapha am sëñ Modou Xaar yi ñoo bokk Bintu Touré mi leen meññ sëñ Abdou Karim Touré di maam eh, sama yi laay wàlle tey nag moom wax dëgg yàlla gisuma samay bopp tey waa Touba gii nga xam ne ñoo ma ñor ñoo ma porté ñoo ma téye ñoom laa gis ndax tey samay mbopp tey dañoo am dëkk boo xam ne mënuñu ko wan ginnaaw di ñëw metti sax tey ñi fi nekk ñëpp waa Touba lañ ma téeméeri mbootaay ak ñaar fukk ak juróom wuy si nañ président sati sëñ Touba yaa ngi nii toog boo dee yëkkateeti wala ngay teral da ngay seet ñi sëñ Touba di seen maam nga yëkkati leen waaye dégg ngeen lii duñ la yàq te duñ la wute daraja ndax daraja li ji seen maam jot doy na leen kuloo taxumaa jub tey damay liggéey président Papa Diop dal nga ci sa parti bi 2017 ba tey gisuma mu yokk tey maa la terale sëti sëñ Touba yi toog sëñ Cheikh Bass mii mi ngi ci sama ginnaaw taxaw fas yéene laa liggéeyal ci dëkk maamam bi ànd ko mbokkam yu baax yi président Pape Diop dooleelal sëti sëñ Touba yi ñoom jomb nañoo taxaw di la xas ñoom duñ la xas ndax li ngay def ci dëkk bi nag moom la Serigne Touba nangu li ngay def ci dëkk bi moom la Serigne Touba nangu président ndax damaa wax ne ñett yi man dama koo maîtriser jàng ko mokkal ko dane ku def lu baax dangay am lu baax man gëm naa lool olof dane tubaab dane seul le travail paye alxuraan ne hal jazaa'ul ihsaanu illa al ihsaan yàlla ne man ndax damaa goree ba ku ma defal lu baax du la fay président Pape Diop li nga def ci Serigne Touba mii Serigne Touba amul tànki ginnaaw tànki kanam la am tey loo soxla ci Touba te amoo ko ci yow la Touba gépp jug nañ tey àndandoo tijji seen i bunt ñëw fas yéene laa tàllal loxo ànd ak yow CDS Mbay dàgg sëñ Moustapha sëñ Bas Cheikh Bas a ngi nii toog ànd ak yu baax yii Cheikh Bas sëñ Moustapha Xaadim bàyyi sëñ Tuubaa mi ñuy tooñ ñii la sëñ Tuubaa di seen maam président nag tey ma di la leeral ne la xottiwuma benn otes lu yewuma benn opposition sama doole laa ñëwee ànd koog yow di la présenté mbooloom Touba mi foo soxla mbooloo bis ni ci tey fii ba déwén bis bu set ma wan la mbooloo mu ëpp mi xottiwu may otes fayu may paas diguma kenn dara naxuma kenn ñi ma woo ñëpp dama leen ne ñëw leen wuy si ma ci président Pape Diop barki démb laa déclenché mouvement bu mag indil ko président Pape Diop président sa parti bi 2017 ba tey benn nit xemmeemu ko ba di ci dugg ndax jikko yu ñaaw dinañ tëj parti bi nag tàllal loxo ñëpp fas yéene ànd ak ñëpp ci département bi liggéey parti bi jëm kanam li ngeen bëgg lépp ngeen am ko yaakaar naa ne duma leen dig ndax xam ngeen man maay kan bi may am fukki at ñeent laa wàccoon ci sama néeg bee juguma ci ba tey li ma ñor mooy dimbalee wata aawunu anil birri wa taqwa bi ñu fi sëñ Touba dajale gërëm te di la xam ne bàkk nga ñaan yow président Sénégal waxuma la Touba Sénégal laa lay jox rendez-vous ne la penc Sénégal yi foo ci soxla ma baat rek ko jox la man Mariama Touré ndax maay mbokkum Sénégal lii ma am Touba lii ma am Touba lu ko raw laa am ti waaw sama kër maam la duma fa fanaan bitti lii ma am Tiwaawan moom laa am Kaolack moom laa am Ndiassane moom laa am kër sa kër kër Louga loogee kër maam Cheikh Mbaye président Papa Diop bu ma lay jox rendez-vous du lay jox dire du ma la jox du ma la jox King Fat dama lay jox grand grand fii laa koy tàmbale jaay cere fa laa ñore ku mën da def ci sa dëkk ñu gis ban responsable moo amul ndombal tànk ci Touba dajale lu toll nii te li tax mu toll nii mooy tey damaa am dëj samay bokk yëpp kenn ñëw waaye su fekkoon ne dëj bi gàllankoorum tey di ngeen gis lu ngeen mës a gis ci département Mbacké président Pape Diop département yaa ko téye mu gañe la neexee nga wàcc ma battre campagne jox la département président xaalis ku ko am moo ciy terle ku judd ci sa mënuk baay sa ngénte neex alaaji jiili mbay mooy sama baay man xaalis jaaxaluma du toroxal nit ndax xaalis du xas nit ndax xaalis du jaay sama ngor du bàyyi nit ndax xaalis président dëkk bi ak ñi nekk ci dëkk bi ñoo ma ñor ñoom laa bëgg a liggéeyal yéen nag maa ngi leen di lancé sama message fii li fi ñëw tey ci nit ñeenti téeméeri seize yi ma luye nit ñi taxaw li ma leen yóbbante mooy jigéen ñi nañ gëm seen bopp bàyyi di fooye seen bopp fii ngeen toll fi laa murit fi laa jaar ñu di ma nax di ma sëf di ma xottil ay voile man damay liggéey di sol borode di ko solal samay moroom loolu nañ ci jug di ko xeex gaara ay oto doy la ci def ci ay ay def def ci solal la ay vaal nga defee ni yaa ci ne ñu dem Dakar jaaye la xaalis bu bëri yow nga ñëw toog sa njaboot di souffrance bàyyi leen loolu loolu du politique loolu du politique nañu àndandoo takk ñun ñëpp xeex ko fexe ba kenn ku ne doon femme leader ca gox ba nga nekk kenn ku ne avancé sa gox suñu doom yi ëllëg ñu am lu ñu jàpp ku ci jekk da ngay toroxal jigéen ku ci jekk da ngay xas jigéen ñi loolu nañ ko bàyyi tey nag sama xadar ñëwul damaa am da naqar te bànneex ak naqar mun mënut a ànd waaye ki may jox rendez mooy président Pape Diop bis bu ma la woote waat woote la waatee ci Touba gii kenn foo ay nekkoon ci Touba di nga di di di dina la tàllal loxo ndax xam nañ liggéey rek moo wóor nañu bàyyi jigéen ñi ñuy jël ak nit ñi ñuy nax bu ñu nekkee ci parti ñuy def ci ñoom teraanga ba ñu jekk jël jigéen ñi dem jaay leen dajale seenu xaalis yokkal seenu njaboot ñun ñuy gën a torox di gën a souffrance ñoo lànk duñ bi ngeen may laaj président Pape Diop sa prénance duma ko yemale Touba Malla sama responsable yi kenn ku ne ñi fi ñëw kenn ku ne indil nga ma sa parrainage kenn ku ne indil nga ma kenn ku ne indil nga ma sa parrainage laaju ma tey ay ay ay ay enregistrement de ay photocopie carte d'identité laa yor lu leer jënduma kenn triché ma kenn mosuma jaay parrainage ci département kenn ku ne sol sama dàll dem ba sa kër nga photocopier jox ma pare na ma yow may xamal jigéeni Touba di xamal góori Touba ne leen ginaar du toppi kuy taxani te gis ku jëm ca wala ndoowa président Pape Diop moo yor raakool bi roose ba fépp tooy nañ ko topp nañ ko topp kon nag maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp dellu di beral sant Cheikh Bassirou Mbacke moom sëñ sëñ Moustapha Abdou di sant sama mag yii di sant sama géwal yii di sant sama xarit yii du ma Aada Ndiaye male Baye Cheikh ñëwal sànnil ma li ma bokk ak ba ñëwal wax ma li ma bokk ak Sénégal ma dégg ko doog a def li wax may may wax nit ñi ne coordinateur fii ñu nekk ci département bi bii existé wul parti bokk gis-gis fi ñu dañoo tëj suñuy porte yaatal ñëpp bëgg ñëpp ñëw comme nii ma def comme nii ma def tey indil président Pape Diop sëti sëñ Touba yii su soxlaa dëkk bi ñu jël seen dëkku maam bii defar ko ba ñu jox ko ko ndax yéene lañ am ci moom président Pape Diop buy def ci sëriñ si du bëgg sax ñun politique si mbay daal ba duma ci gaar loolu moom dama koo tourner au pas man terrain bi ci laa ne tey liggéey yaakaar naa yéen journaliste yi toog tey maag yéen a daan tase yaakaar naa mobilisation bu mel nii ku ne ma mas naa koo gis ci département bi te amul ndombal tànk na ma ko loolu rek mooy sama tontu foofu lii kay ku ñëw gis ko rek xam ne bokk gis-gis bare na ci lépp tàllal nañ suñu loxo ñëpp ibbi nañ suñuy bunt ci ñëpp coow li moom coow li moom wax dëgg yàlla man jarul sa perte temps taxul ma dajalee kilifa yéen mbooloo mii tey coow li moom taxumaa jug ndax coow li moom ku ne xam na ne mbelele leen moom fajul dara lii mooy yëf yi ku yorul ndomba tànk jëf lu mel nii l'essentiel nag mooy parti bi moom fu see naa ñëpp ànd nekk benn te li ko doon yaakaar naa li ko li doon xajamal kere fi ne nii léegi mu leer ñu àndandoo tàllal ñëpp loxo woo naa ñëpp bàyyiwu ma kenn képp ku nekk dawal ñu wàcc ànd liggéey wan président Pape Diop preuve parti boo xam ne 2017 ak tey amul benn nit ku am fulla koo xam ne rejoindre nga parti bi xam nga ne loolu c'est faux barki démb laa taxaw fas yéene yëkkati ñi moom dëkk bi boole leen ak président Pape Diop sëñ Cheikh Bass mii jaaxaan yëkkatiwu ko président Pape Diop encore maa ngi la koy présenté mi ngi ci dëkku maamam bii di ci def lu baax ma nga ca toolam ya di bay chaque nawet muy bay ñëwal dooleel ñiy jàppale leen seen maamam moom dëkk bi doo ko jox ñi lay xaxar ak la xas ñii ñëw moom dëkk bi nañ leen ko fi mu toll président Pape Diop loolu moom laa ciy déglu lu mu dogal neex lu mu dogal suba dama ciy ànd l' li ma ñor dinaa liggéey dinaa ko won preuve boo xam ne lu mën a xew du gis li may def ci département bi ku def lu ko loolu moom leer na ko Touba Mbacké même ñoo ànd séparé wu wuñu ñun ñëpp benn ñun ñëpp benn lañ ku génn yow la concerné ku resté dinañ ànd ak yow tàllal la loxo liggéey ndax département bi rek moo ñu ñëw. ba ko gis-gis fu mu yem fa laay yem te yàlla bu mu jeex ak 100 ans maa ngi ci président Fatou.